da ci gën a baax taaliba bàyyi amaa lu moroom mm-hmm. kenn doo xam yàlla doon taaliba bàyyi mm-hmm. fu des yëpp doo xam yàlla mukk doon doo ko man di la jox julleel kattan li mën a fi jox la wërsëg yi nga xam ne moom ngay wéyee ba mën a am kattan loolu jullee boo taxawee di julli julli du wéet lu may ci nga jàng alxuraan alxuraan di ko téere téere yàlla la di julli gaage daal di nga gis xam ne yow defuloo dara man lu may rek dellu ne ko yow laa mën a yow laa dimbali ko pour mën a def jaamu yàlla indi na yoon al-mustaqim wala aji jub jub nag danañ ko firee boo xam ne mooy bind njub ci xolof jaam ba kooku yàlla rek ko mën ak njub moo xam ne mooy tegtal jaam bi yoonu njub loolu yonent yi mën a ak ko dégg moo tax yàlla wax yonent ne ko innaka laa tahdi man ahbabta man laa jubal ki nga bëgg abi taalib la gënoon a bëgg abi taalib bëgg moo ko gën a jariñ waaye dee na ci kéefar ba mu nekkee yonent bi yàlla ne ko man laa jubal koo sopp man maa jubal ku ma sopp te rewut mu ne ko wa innaka la tahdi ila siraatin mustaqim da nga juble jëm ci yoonu jub la xam ne juble ni yonent bi man moom wali wali man ko kóode ji man ko mooy tegtal jàng yi Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah